li nit ñi ragal yépp man ragaluma ko man mosna bind ben texte ci laïcité homosexualité ak franc maçonnerie dem ba publier ma taxaw ah bon waaw ndax la dama ragal no doy caaxaan hmm? waaw dama lay wax rek ah, amna lo ragal deke na amna lo ragal waaw amna waaw amna lo ragal yalla daf ma bindé no xamni ni kenn duma ma je suis incapable d'avoir peur. li nit ñi ragal man bi ci kaso. bi ma kaso ba léegi kenn mënutuma tiital ci dara. ndax kaso dafa am jàmm. maanaam kaso barab la boo xam ni da ngay da ngay sport da ngay da ngay da ngay bind. allah bu ñetti fan ma nga xamni mom la nek ci loxo yoon ñetti fan yu metti la fan yu tar la réew mu melni ni sénégal ñuy jël ay nit di leen duggal ci fo xamni ni ginaar gu baax sax waru ko faal ñi di ci euh, ci cellule yo xamni kenn mënu fa noy ndax ay fenêtre yu sew a lañ fay def yooyu yi nuyu naa leen ziar leen bu baax a baax tey nag dañuy euh, ñëw wax ci Cheikh Yérim seex Cheikh Yérim Seck ndeysaan noppalal sa bopp noppalal sa bopp seex Yérim à chaque fois boo waxee gars yi fois boo waxee nga weddi sa bopp Cheikh Yérim Seck gars yi xam nañ la bu yàgg a yàgg sénégalais xam nañ la. mëna to fi waxa waxa waxa waxa wax ba Sénégalais di gëm sa wax parce que bo waxé xam nañ ne li ngay wax li ci nekk dëgg bëriwul xam nañ ne boo waxee li la tax a jóg lan ben objectif nga am moy yàqal régime bi fi nekk ben objectif nga am ngir yàqal Ousmane Sonko ak Diomaye ben objectif nga am moy wax jo xamantene xam nga né dara du ci dëgg. te tey jii encore une fois yaa ngi koy wanewaat Cheikh Yérim Cheikh Yérim noppal sa bopp Cheikh Yérim Sénégal soxlawuñ ñu mel nii quoi parce que ñu ci mel ne Cheikh Yérim amuñu honnêteté intellectuelle wax dëgg sa yàlla Sénégal dafa war a passé fii mu nekk quoi ñu dañu war a liggéey suñu réew au lieu que ñu am ay journalistes yoo xam ne ñuy tardeel ay chroniqueurs yoo xam ne ñuy tardeel waxuñu benn dëgg Cheikh Yérim Seck moytu sa bopp a chaque fois ngay wax yaa ngi gën a ñàkkal fayda sa bopp yaa ngi gën a ridiculiser sa bopp yaa ngi gën a wane sa vrai visage te mënoo waxa waxa waxa ba am crédibilité ci bëtu askanu Sénégal ndaxte damay wax que ni Ousmane Sonko dafa feeñal ñu bari Ousmane Sonko dafa feeñal yi nga xamante ne dëw ñu wax dëgg ñu baree baree bari bari Ousmane Sonko lobby am eh, ci politique bi feeñal na ko lobby lobby am ci li nga xamante ne mooy eh, eh, këru diine yi feeñal na leen Ousmane Sonko lobby yi am ci Sénégal yëpp feeñal na leen loolu noonu Ousmane Sonko la ko yàlla may ñu mel ne genre yooyu mii nag ci ñooñ nañ bokk ñu Ousmane Sonko feeñal donc yirim noppalu ak ku la mën a a tamit loo ñu ciy wax ak la loo ñu ciy wax naa rëgaloo ragal nga rëgaloo ñun loolu xamuñu ci dara demal nga porter plainte fekk daa am ku lay menace moo gën nga nekk fii naan damaa ragal wala damaa ñeme te encore une fois booy dañ lay gën a weddi Sénégalais dañ lay gën a weddi da ngay gën a ridiculiser sa bopp. voilà ñu jàll ci beneen actualité bi semaine bi passé gis nañ euh, gàmmu gi euh, amoon donc gis nañ que ni. am malgré que ne waxtaan am solo am na ci gaay faire jël ne leen def débat pour man débat bi warunte nekk euh, fi nga xamante ne fi la Serigne Moustapha euh, mu am dimension exceptionnelle franchement gaay jël waxam fa daanaka dañ contexte parce que analyse ci mën def barina mais am tant que ñi nga xamante ne ay croyants lañ ay tant que ñoo xamante ne ay woy gëm lañ ñun jàpp nañ que ne euh, euh, Serigne Moustapha li mu def ci gàmmu gi ak li mu wax ci yeneen bi ak dimension bi mu ci waxe amul benn pour man Serigne bu ko ci waxe waaw li wax ci yeneen bi peut-être nga dégg waxam nag moom moo jafe mais li mu wax ci Ousmane Sonko fa daanaka boo ko jëlee matul une minute mais gars yi bari naafeq ak ñàkk a wax mën a ñàkk mën a wax dëgg moo tax ñu naan. gambu gi thème Ousmane Sonko lo woon ñun ñi ñëpp dañu top Ousmane Sonko mais bu ñu deug dëgg Serigne Moustapha gambu gi lim def ci gambu gi ak daan rek mu waxtaan une heure de temps une minute rek la jël wax ko ci Ousmane Sonko to te da fay alerte waaw Ousmane Sonko xam ma lan mo nekk ci biir nak mais li yoon te mu waroon am Ousmane Sonko woon ta dem Tivaouane ba jénn fa ta dem ci Serigne Moustapha ak lu mu mënante doon même sax buñ ko ibloonu même sax bu ko tëjaloon bunt yi dem ba ci biir course ba tok fa même si te ndax Ousmane Sonko bu fa demone ngay xajal ak lu mu mën ci doon parce que dayo moom mo toll non li dombal tank bi mu am moom mo toll non kon Ousmane ma ngi lay ñaan Serigne Moustapha sa serigne la Serigne Moustapha sa kilifa la Serigne Moustapha da ngeen doon and di liggey nga nekkon ci ay xat-xat mu jappale la ba ñepp xam ko ci jamono ji nga xamantene Euh, position bi mu jëloon jafe na nitu diine ku ko jël moom mu jël ko ragalu ko tey nag yaay dem ci ñoo xamante ne mën nañoo wax que ni euh, bu jamono jooju méttee dañ doon wax nan lu gën a euh, dañ doon wax ñu teg la lu metti dañ doon wax bu sañoon heure bi doo exister ci jamono boobu nag sëñ Moustapha ci la taxaw kon boo demee di jéggal ñooñu di leen seeti di kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom kon nag war nga ko mën a def ak sëñ Moustapha si Serigne Moustapha soxlul dara reconnaissance rek la soxla voilà loolu lañ ci mënoon a waax di wax ngeen wéy ci ñëw ci commentaire yi wax ci seen xalaat ak seen gis-gis te Sénégal nañu bàyyi naa fex nañu waxante dëgg voilà